El Hadji Lamine Baaxa Mbacke daal di woon ne judd ci atum 1921 ca Touba Mbacke moom El Hadji Lamine Baaxa Mbacke moomu doon noon juróom-benneelu xalif général des Mourides gannaaw bi nga xamante ne ni kii di Serigne Saliou Mbacke daal di ne génn àdduna moom El Hadji Lamine Baaxa Mbacke doon noon ko am xam-xam lool jëm ci li nga xamante ne ni mooy science religieuse gannaaw bi nga xamante ni kii di trondoom Serigne Mouhamadou Lamine Baaxa Mbacke moo ko daal di jàngal. tey fii ci Massalikul Jinaan nga xamante ni liggéey bépp ci moom la dooree nga xamante ni moo daal di woon teg xeer bu njëkk bi àndoon ceeg ki nga xamante ni moo fi nekkoon jiiti réew di maître Abdoulaye Wade daal di jël boobule liggéey teg ko ci loxoy ki nga xamante ni mooy El Hadji yu Faye waaye yàlla mu ngi ko dogalee ci Cheikh Mouhamadul Amin Abdoulaye Wade jël terrain bi mu hectare hectares jox ko Serigne Touba mu nekk laa xamante ni murid yëpp ku ci war a delloo njukkal loolu mun fekke naa ko Cheikh Mouhamadou lemin yable woote Sëriñ Muntaxa mii fi ne moom la defoon jëwriñ ci jamono jooju ba xoolee ci image yi sax danga gis Cheikh Muntaxa nekk ci wetu Cheikh Mouhamadou Lamine ñu wësat Sëriñ Tuubaa yëpp ñi ko moom la mu waxoon rek ba ñu doo ko toog ñi ko moomoon dem nañ ñu ko bokk fi des wësat Sëriñ Tuubaa yi mu bokk Sëriñ Tuubaa yëpp ñu dem Ndakaaru teg xeer bi loolu di histoire bu rëy ñëpp di ko fàttaliku bañ tegee xeer bi mu woo Mbackiou fay ba mu ñëw xaalis ba keroog kër sama kër waajur Cheikh Amadou Moussa mi nga xam ne mooy ab taawam fa lañ ko doon wàññee cent millions njëkk joxe ci tàng-tàng bi na Mbackiou ma tàmbalee lii moom El lamin baax a Mbàkke doo noon ki nga xamante nii dafay bàyyi xel ñii di taalibe murid yi ba tax sax mu leen daan dimbali lu bari ci yoonu murid euh, kóllëre la woon nit la woon koo xam ne kii ku am yitte la woon nit la woon ku am yëg la woon nit ku am yërmande la woon nangut kenn ku néewoon doole kenn ci kanamam waaw ak comment doon rek boo néewee doole bu dikkee mu la te ñoo yaakaar na ñi fi nekk ci xam nañ ko ba ci ki fi nekk tey ji xam na loolu ci moom ndax am na jamono yoo xam ne yi dañ ko bëggee néewal doole taxaw na ko taxaw yoo xam ne yi defe naa loolu kenn du ko tey jii nag fii ci mosquée Massalikul Jinaan nga xamante ni ñu ngi ko tabax ci xolu ndakaaru ci lu toll ci juróom-benn ci ay hectares boo fi dikkee nag ñu daal di ko fiy jagleel ab bés bi nga xamante ni dañ ko fi fàttaliku moom El Hadji Lamine Baaxa Mbàkke gannaaw bi nga xamante nii lii di liggéey bi di massali kul Massalikul Jinaan moo ko daal di dooroon moom bi mu dëddoo àdduna sax ki nga xamante nii mooy Sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke moo ko daal di àggale ba tey jii nag ki nga xamante ne nii mooy Sëriñ Muntaxa Mbàkke fa seen koo inauguré ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre décembre bi ñu jëm moom El Hadji Lamine Baaxa Mbàkke moom nag daal di nay génn àdduna fanweeri fan ci weeru juin ci atum 2010 tey jii nag murit yëpp àndandoo di ko fàttaliku boobu nitu yàlla